dañuy ñaxtu euh, li nga xamante ne feebar la bu yàgg nekk ci école bi muy intendant bi fi nekk nga xamante ne liggéeyul ak ñun liggéey bi nga xamante ne moom lañ ko dénk ndax buñ ne liggéeyu ko defe naa li ñuy wax ci français gis nañ ne lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu gestion ci xaalis bi leeralu ci dara lu ci bari da koo luubal te mu yàgg lool nit ñi yàgg di ko joytu nee naa 2016 2017 Je fi am élève dama fi daan ñëw ay réunion parce que je nekk vice-présidente de coordination au département de Rufisque dama daan ñëw fii di ay réunion booba ñeneen ñoo fi nekk ñu gis ne loolu jeexul ba tey moo 2020 bi bi ñu ñëwee ñu ni faaw ñu ñëw bokk bokk ci xeex bi ndax li tax ñu parents d'élèves <coughs> dañ ñu li nga xamante ne moom lañ fiy dugal ndax école bi li ciy dugg bari na de dëgg la état bi dina dugal waaye parents d'élèves yi aussi dina dugal parce que parents d'élèves fu muy demee ba dugal ma 19 million defe naa ne kooku kenn ëppalewu ko ci école bi léegi nag loolu lañ bëgg mu leer parce que jigéen ñi li ci ëpp ñoo koy def dëgg la bàyyi dinañ def de mais yaay yi dinañu def lu ëpp ci loolu def ko ak métit ndax ña ngay yaxantu di indi ña ngay ñaanaatu di indi mu nekk loo xamante ne loolu dañu bëgg école bi mën a jëm kanam suñuy doom aussi jëm kanam mais suñ demee ba ñun li ñuy dugal dafay nekk gàllankoor ci ñun nekk gàllankoor ci suñuy doom nekk gàllankoor aussi ci professeurs yi dafay nekk nag loo xam ne lu metti la nit ki sooy liggéey te li nga xamante ne liggéeyuloo ci lu leer nga dem ba bëgg a taxal sax proviseur dañ lay génnee ci école bi indi wuñ ko fi demee mën nañ ko fee génnee communauté bi ñoo moom école yi kon intendant nanu abal di wax xam parce que intendant def nañu pratiquement trois ans mais voire quatre ans mais vraiment ku liggéeyal la que liggéeyal la mu ngeen a jot ndax na blocage au niveau des affaires pédagogiques climat social bi man fa lay fa lay kii parce que wax nañ affaire aspect financier moo moo moo ñu ñuulu mais li gën a metti mooy dëkk toujours bi ak équipe pédagogique professeurs yi xeex na ceeg ñenn xeex nag gérante cantine topp ci élèves yi nag di leen courtiser di doxaan élèves yi mm-hmm. dañuy jaar dañuy il faut ñu toj yax bi di doxaan élèves yi man mii sama joteeg moom ci ci élève la jóge yaa may dégg kon man am naa lu ma ci xam mm-hmm. léegi nag comme euh, moom moo fi nekk góom hmm? alcool bi li ñu jël nekk ci pëy mm-hmm. mu dégagé.